ñu koy fi ñu li ñu fay gën a may pour ñu yegg fa mooy nañu focus nañu concentré wu ci processus électoral bi nañu concentré wu ci jour élection bi nga xam ne fa lañ jëm parce que dañuy dem élection. yéen a ngi xam ne Sonko mun na mun na génn suba wala. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñoom ñoo ko ñoom ñoom la rek ñoom la rek ñoom ñoo xool ba mu neex leen ñu jàpp tëj jàpp ay nitam tëj ñoom ñooy toogaat ñun ba heure bii di jàpp ñi ñu jàppoon di leen génn kon loolu ñoom la rek question ñoom ñoo ciy répondre ni ñu defoon ba jàpp Ousmane Sonko nañ ko defaat pour bàyyi mu génn lool la ñun fi ñu nekk xam nga fan la mooy jàkkaarloog ñoom ci élection yi ñoom ñu amal ñu parce que dafa doy dafa doy dafa doy sëkk na na sama mbokk jeunesse jeunes yi ñu dem ñu récupérer seen carte électeur yi nekk ci sous préfecture yi ak ci yeneen lieux yi nga xamante ne bii yóbbu nañ fa eh, eh, carte yi parce que carte yi nekkul rek ci ci euh, ni ñu koy waxee ci sous yi am na ci yeneen lieux yi nekk ku ci nekk commune bi nga nekk wala gox bi nga nekk fexeel nga xam fan la carte d'identité yi nekk nga dem nga jëli ko te ñu préparer élection yi parce que dañuy dem élection kanta mm. booy ñu jàppoon booy booy fi des nag ñu ngi ñaan suñu borom ñi ñu njëkk a génne ni ñu génnee si jàmm ak ak ak ak seen wér-gi-yaram mm. ñi génnaat aussi nañu génnee noonu si jàmm mm. ak seen wér-gi-yaram le président Ousmane Sonko ñu koy ñaanal moom it fi mu nekk. yàlla defal ko fa ay tawféex ba mu fekkaat ñu ci jàmm parce que 2024 bi fii la Sénégal di jaaree sànq ba foofu incha allah mu rafetlu. jërëjëf jërëjëf waaw. joxaat joxaat waaw joxaat joxaat kàddu keneen man Jibril Seck laa tudd. waaw. yow dañ moom de mais tey su sañoon bokk ci ñu jàpp. tax parce que damaa gis ne ñii dañoo xeexal seen réew maanaam ay héros lañ daal ñoom mhm. waaw. Mhm. ndax da nga am lu mu loo bëggaat ma ma yokkaat ko. waaw ngir Ousmane Sonko ak li nga xam ne moom mooy tey euh, booy yi génn tey contentement la si yow wala. waaw donc contentement la quoi mais nag bu yema yema yema yema parce que nit koo xam ne li mu fi duggee li mu fi duggee nekkut lu mu jëf waaye ci coobari nit lañ ko fi dugal mm-hmm. kon dañuy jàpp ne ñoom ñoo jël ay doomi jàmbur. jaay leen doole dugal leen fii li war nag mooy bañ leen ginnaaw bi nga xamee ne ay responsable kese ci nekk ndax yàlla dafa dogal Pastef amul ku yaafus foo ko gis ku bëgg dara la di liggéey ñu téye leen daggaloo leen seen activité yëpp donc na jàpp naa ne waruñu leen a libéré rek ay loxo nañ war nañ leen na dédommager au moins waaw beneen bi ci tege nag may lancé waat ndaw yi message na leen nanu dem jëli seen carte d'identité parce que yéene waajal élection yi ci kattanu yàlla waaw beneen bi ci tege nag muy mbirum Ousmane Sonko mi ngi ñuy wax mooy ñoom Ousmane Sonko man du ma di ko wax ci lu nee nag laa ko wax ñu nag moom a wa ata'na lu ñu digal gëm nañ ko te danañ ko jëf ci kàttanu yàlla mhm. waaw gëm nga ni mu génn wala waaw mën gëm nañ ne mën na génn sax ci guddi gi mhm. parce que nit koo xam ne jàppoo ko ci ay argument boo koy bàyyi mën ngaa bañ a am argument mhm. yoo koy bàyyee ndax li xew fii ni tey lii kenn mënu ko noo ko mën a imaginer bi ndax lii Sénégal mosul nañ xalaat xalaat ne dinañ ko ak yaayu xale yi ana benn kàddu nga leen di xanaa di leen gën a masawu rek te wax leen na leen am nañ doom yoo xam ne mën nañ koo tiitaroo ndax doom yoo xam ne jàppuñ ko ci rey nit jàppuñ ko ci euh, drogue jàppuñ ko ci yamba jàppuñ ko ci dara lan lañ ko jàppee dafa taxaw di résister pour lu defar ëllëgu réewam ñooñu histoire da leen di bind kon ku ci jur doom war ngaa gën a sant waaw beneen bi ci tege nag man di leen wax ne leen mbirum Ousmane Sonko mii faalun limaa yurid yàlla lu ko soob lay def yàlla xam na ko te coobareem la wane ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko li mu am ak ñii Sénégal mel ak ni ñu ko toppee ku ko amoon bayre boo koy sang nga sang nga sangoo ko wala nga sang ko sa doom. ñu gis également conseil constitutionnel. Euh, dafa daal di annulé décret président bi pour lu ñu ñoroon report des élections présidentielles. waaw loolu de yaakaar naa euh, nekkul loo xam ne lu lu lu lu jafe jàngat la donte ñun defuñu droit yàlla xam ne defuñu sax école faf daara lañ jógee. waaye nag jàpp naa ne euh, ni mu demee bettul kenn quoi nekkul loo xam ne surprise la tey taxut nag may saluer conseil constitutionnel. parce que bu fekkoon ne seen liggéey dañ koo def na mu waree Ousmane Sonko tey mooy nekk suñu candidat mais lii xew nii dañoo dem ba yegg ci miir ba am na loo xam ne nii porte de sortie yoo xam ne nii buñ ko deful tamit fi ñuy mujj du baax c'est ça la réalité. waaye parce que conseil constitutionnel lii mu def nii. munoo wàññi mandat mun nga ne munoo yokk munoo wàññi mandat bëgg a yokk mandat loolu logiqueul waaw loolu nag kon jàppuñ ne lu ñu war a salié la wala nangam ak nangam ñu fay la pour droit ñu lay fay l'argent de contribuable ba pare nga wëlbati ko wax droit nit ñi di la salié loolu moo lay xam ne suñu réew euh, retard na trop quoi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ñu affaire bi waa Sawlax Sawlax sant boo xam yow nga débarqué wu directement daal di daal di ñëw après ma jël saawlof jégal ma ko grand grand jégal ma ko rek dama lay jël léegi saawlof nga débarqué sa kii ndaw ñi génn nañ mais maa ngi leen doon seetaan Sénégal 7 moom mooy seen des grands événements maanaam foo nekk di nekkal ma la fa yéen laa seetaan affaire bi kii ma ndax man dama wax naan ñi ma ay nit di menacé kaso ma ne leen lenn rek moo ma dese mooy dugg kaso ne ko kenn moo ma a jaay dara mais man ñu jaar fii képp ñoom ñoo mën a wax ma noppi mais du ñeneen parce que dañ ko def ci dignité def ko ci ngor tawuñu ko ci parce que dañoo xeex dëgg suñ leen faatoon tey yéen dañuy dem dañuy texe parce que ay martyr la kon bu ñu jëlee kaso ci lii dafa nekk loo xam ne dafay nekk ci seen CV xam nga kaso da daan nekk yàq sa casier mais kaso bi dafay gën a enrichir sa casier parce que dañuy xam ne yow jaar bi nga jaar jeex jaar bi nga jaar kii xeexal askan xeex ngir dëgg am moo la tax a ñëw fi ne nii ñun ñii ñëpp amul kenn koo xam ne ni tey mënuñu mënuñu lu faa fekk di la di la di la jaay ma Omar Bamba bàyyi nañ di la jaay maanaam wala yu demee mais li may laaj mooy Serigne Moustapha Mbacke est-ce que est-ce bàyyi nañ am di Moustapha bàyyi ko ci ah waaye sëñ bi yow yow yow yow yow Saalum yaa ngi en direct. yaa ngi en direct. non non ñu demee ak li nga xam ne mooy passion wala dara. non non man waxal si réew mi man damay dara damay émotif. waxal si réew mi waxal si réew mi par maa ngi lay maa ngi lay mu nekk respect bi nga xam ne Saalum jagleel na la ko tey yow ba nga gisee mbir lan la lan la njëkk maa ngi leen di sant di nuyu ñi nga xam ne la fekk ñëpp di présenté wu di ne man maay Abdou Diakhate coordinateur de la commune de Jaxaay Pastef. yàlla dogal fii nag ñun jot dugg. ba def fi six mois. ndax mois de juillet lañ jàpp. ñu defee ay six mois yu mooy ay quatre jours la ñu avec nos lieux trois. le vingt neuf bi lañ génn. bari na ñoo xamante ne fii tey bi ñu leen bàyyee gis naa leen ñun maag ñoom ñoo bokkoon sàmm mhm. yàlla dafa dogal nag euh, ñun nguur gi ñu yor dañuy fooyee kaso mhm. ndax kaso dafa nekkoon kumpa loo xamante ni que pour nga dugg fii mhm. da ngay def lu garaaw garaaw tax ñu dugal la fi léegi nag fexe dafa xamal ñun ñëpp kaso lépp loo xamante da koo ragal boo xasee ba dugg kaso daanaka ñu doo ko ragal mooy yàlla def na am na ay xale yu dugal fii bu ñu génnee amaana bu ñu amul benn encadrement baax rek ëllëg mën nañoo def yeneen loxo yoo xam ne dañuy jël si waat si biir ñu jàpp la waaw man hmm. puisque je suis le coordinateur kër laa toog ñu ñëw fekk moo jël si ma yóbbu waaw te man préparé woon ko ndax di Ousmane Sonko am cax bu mu leen caxoo ñoom hmm. dafa woon Moussa Fall ne ko ni ngeen ñuy toppee ñun noonu la ngeen hmm. ñu si bëree bëri laata ñuy jàpp dañuy informé ne dina jàpp tel jour mais mënoo ànd ak say say ay ay ndaw ñuy porté combat bi nga ànd seen ñoom di xeex ñu ne leen jàpp suba nga naan damay daw mm-hmm. man moo tax bi may jàpp sama kër laa toog mm-hmm. ñu ñëw jàpp ma mm-hmm. bi ma jàppee ma dem ñu ñëw tëj ma fii ñu ah, ñëw tëjee tamit damaa kontaan lool ndax ñu ma fekk macha allah parce que fii du gàcce ndax defoo la fi lu fi indee te ñu ma tëjee bi ma ñëwee fekk booy dama leen conscientiser xam nga leen ne ñu sawaay la tëj moom moo lay tijji na laaj waaw bis par rapport ak fii ñu nekkoon ndaw ñu nekk fii sénégalais bu nga xam nan ngeen doon dundee yéen si biir benn nekk waaw man nag yàlla dogal na damaa jaar Sambour 14 bi nga xam ne fa la jóg tey fi jaar bi ma ñëwee sama premier jour bi ma ñëwee ba dugg vraiment dama ne non yaakaaruma nit war naa dugg fii nit doomu aadama mhm. ndax li ma njëkk a jaaxal mooy fu ma taxaw sa amoo mhm. yàlla dogal na nag am na ñu mu àndaloon ñu bëri parce que boobu bëri nañ mais bu ma ñëwee dama ne saa yi wul fu ngeen taxaw ngeen taxaw ma gis ki xam ne moom mooy seen sama mënu mën a taxaw ne ma taxaw nga xam ne def naa fi lu mat ñaari guddi yoo xam ne fanaanee taxaw ba set waaw def naa fi ñaari guddi yoo xam ne fanaanee taxaw ba set lay def bon ñun nag ay patriote lañ dama leen dama xamal gars yi seen sàmm rek ñu fi nekk ne ñun nag du nekk ci biti xeex ba ñu kaso di nokk ay xar soit damay tëdd wooy laa ñu fëgg ñu porte ñu tegal ma dama paqueté comme tout le monde may tëdd comme ñëpp. paquetage mooy la. ah paquetage ngay tëdd roofaloo rek loolu mooy paquetage ñaq ñaq kii dina laal sa ñaq di laal keneen ki mooy waraloon feebar bi bari ci kaso bi. parce que yow sa ñaq xamul si ne sama ñaq xamul si nekk fi ngay tëdd laay tëdd dañuy taxawal ma yow suñu ñaq yi laalante ma midi soir moo taxaw ñu am ay feebar am ay taab di am ay picc tout fii waaw am pagaay alhamdulilah yàlla dogal na tey na parce que am na niveau directeur boo xamante ni changé na fi bëri. ndax moo tax ndox am fi ndax fi fu ndox amee rek amul problème dañ ko lekk bi tamit leerul si si si si ñenn nga xam ne mu mosuñ fee jaar waaw xam nga lekk bi tamit mënul neex parce que li tax mënul neex mooy plus de quatre mille neuf cent détenus ay góor leen toggal boobu lekk mënul neex boobu lekk mënul lekk la boo xamante ni que bu fekkente nii am nga lu lu loo xamante ni loo mën a ci bit la nekk nga mën koo dugal moom mooy gën ma daw ñun fexe nañ ba li ñuy lekk dañu daan jël si biti di ko dugal si biir mais am na ñoo xam ne leen di jàppee Tamba indi leen fii jël tëj du si am benn mbokk boo xamante ni que mën nañ leen ay ko mën ci lekk bi la sa bool ñoom fu ñu nekk dañuy solidarité bañoo nañ ko man bi ma jógee sàmm keroog ñu ba sàmm 48 na Moussa Mbacké mi ñoom Yarga Si commande na force spéciale ñoom génn commande ñoom d' après samedi bi passé bi ci topp mercredi bi fi amoon dañu ne sanctionné gi leen ci néeg yooyu yóbbu na ci néeg yi ñu may waxee ñu ngi sàmm kaba ñu la ku ci mel ne ay ñoom commandant ak ñoom Saliou Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi sàmm neuf ñu ngi sàmm dix am na ñu fi jaar ni sax ñoo xam ne génn nañ leen ñoom gujaa bi ñoom ñëpp sàmm quarante trois lañ nekkoon ñu jël leen mesure leen yóbbu leen sàmm neuf sàmm dix am na ñeneen ñu fi des ñu wax ñoom 43 lañ nekkoon bi problème amee dina jël 43 yóbbu leen Sambour euh, Sambour 3 ñoom ñu ngi souffrir lu métti fi mu toll nii te ñoom ñëpp fi lal ndax dañoo yàgg rampe ndax fii doo ñëw am lal pour nga am lal da ngay rampe mooy da nga ñëw ñu enregistré sa tur ku ñibbi kenn dugg ku ñibbi kenn dugg ku ñibbi kenn kenn tëdd noonu lay demee léegi ki nga xam ne dafa rampe 6 mois xëy suba def problème mu ndaw nga ko sanctionné ko di ko yóbbuwaat si raana bi ko tëdd laaj suuf koy dund actuellement nii ci bi loolu nekk na loo xamante ni lu ñuy déployé la loo xam ne lu dugal nit da nga koy teg fu leer te kaso bi du patrouille rek ñoo fi nekk innocent fi nekk innocent ak a bëri parce que da wax naa ko benn euh, juge bu doon enquête bi ma laajee ne ma yow dañ laa soupçonné da nga wax boisson sa téléphone ma ne ko boisson c'est pas interdit au téléphone wax boisson mu xaw ne boisson ñoom ñoom cocktail ah, loolu mooy cocktail molotov ma ah, mu ñu man fa boisson nga yor. xam nga loolu ay caaxaan. laaj bi mujj bi rek mooy en tant que coordinateur. Hmm. ñu gis ne euh, décision conseil constitutionnel li ñu décidé mooy président def ñoom dañ ko daal di annulé en tant que coordinateur yéen ngeen kàddu nga suñu yëkkati. am na sama benn mbokk bu wax sànq ñun conseil conseil li mu def nii amul dara lu ci apprécié ndax la waroon def da koo da koo passé bu yàgg Ousmane Sonko la candidature Ousmane Sonko def ko waroon a bañ ba pare doog a ñëw fii seen lii ñuy def yëpp ñoom la rek ñun ban pare élection yàgg na dañoo wax ne ñun ñooy taal réew mi boo waxee ñun la waa Pastef ñoom ñooy taal réew mi ñu dem ñoo léegi waa ñun xeexuñu bàyyi leen les combats leen taal ka leen dem élection ñu ñu élection président xëy suba ñu élection amatul ñoom lu ñu bëgg en fait nañ ñu dem élection xam ñu nekk ak ñu nekk nga jàpp ma tëj ma dañuy dañuy bàyyi APR keneen ku ma xam day bàyyi APR moo tax Macky Sall ñu ko ñu ko ñu ko doon conseil ñoo mënut a conseillé ñu ëpp jàmm ñu ne si waa ndax ñi li ma leen conseillé mooy bu dee ñun li ñu tëjee lu noobul la te li ñu jàppe bu subaa bu ñu dañuy defaat lu loolu ndax ñun dara ñoruñu lu may xeexal Sénégal dara ñoruñu lu may fexe ba Sénégal buutu ji mu nekk mu génn ji du la leen maa ngi leen di remercier jërëjëf kon sa wolof kon nga ñëw a baax sànq mu am foo foo foo daanee su am solo par ak xale yi li dund ak seen famille seen yaay loolu yéen kàddu ngeen ñu ko teg bon li ñu dund mooy nit yóbbu na doomam daara dafa dem pour tàggat ko mhm. nit yóbbu na doomam armée pour mu tàggat ko mhm. lii dafa bokk ci warab yi nga xam ne euh, nit daf fi tàggatoo beneen bi mooy nit dana fi def dara mën a am gàcce mhm. mais nit dugg fii fii nii ci anam yi maanaam li ma wax ne sa casier judiciaire da daan yàq nit fi ñu la waree jël fenn li nga jaar kaso tax mu mën laa bañ a jël mais xeeti dugginu kaso waxuma dara même ñiñ sàccoon sax ba dugg wala leneen duñ defal te mu maasee at mii nga xam ne ci lañ doon jàpp ay nit même bu ñu manifestation moo tax ñu jàpp dañuy rawaate loolu mooy loolu beneen bi mooy dafay wan doomu sénégalais yi